jërë ngeen jëf euh, mbokki internet yi dalati leen ak euh, jàmm yéen ñi ñuy topp suñu seen bi bala leen rek dañ leen di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mel na si nag jamono ji accident yi daati bëri lool mën nañ na sax daati nay takku lool ba bari lool nag si diiru ñaari fan yi rek ay accident daat si am ba ay bakkan rek daat si rot nag si nag bi si am tey ji rek sànq si suba tolloog ko juróom benn bakkan topp juróom ñaar daat rek ñàkk seen nëpp bakkan mu doon benn po bis ak minibus ba daati tase ba sax minibus ba lu tolloog ko juróom benn bakkan ñàkk sa seen bakkan juróom ñaar ak ñu sa jële ay gaañu gaañu mu doon lu xamante ne si na rek sénégalais yi jamono ji yaakaar naa ñëpp ñoo ko constantandoo ñoo ko gisandoo mu doon accident yi bëri yi nga xamante ne si ne daf nas kay nemmeeku lool uh, jamono ji si kaw tali bi ana lan moo waral accident yooyu ak lan moo waral it ñu war see jël nga xamante ne si na moo di ay ndogal ak ay mesures ginnaaw nak si rek ba mu weesoo temps yi si ginnaaw naka première ministre ba waxee woon xam xamle ko na danañ jël ay mesures si li nga xamante ne si ne moo di accident yi am saa bu amee danañ sa teg ay mesures texte rek li nga xamante ne si ne moo di ay daan loole yaakaar naa képp ku yeewoo si réew mi rek daat yi ngay nemmeeku na rek jamono ji rek accident yi daata nay bëri lool te saa bu amee rek dañuy nemmeeku na ay bakkan daf say daati rot amit ñu sa jële ay gaañu gaañu yu metti lool kon nag loolee yaakaar naa danaan sa taxaw seetlu waxtaane ko ana yan mesure wala yan dogal lan war a jëlee te ba loole lépp rek naam buy amit mu daati xaw a woyof lool waaye nag doona nemmeeku jamono ji saa bu accident amee rek ñu bari dañ say daati ñàkk seen bakkan mu doon nag mbir mu xaw a metti lool si Sénégal yi ba tax na rek ñu si bëri tamit xaw si amukoo tiitaange saa bu xamante ne si rek ña ngay génn seen kër wala rek daal di dem voyage ji seen xel du daal dara ndax dañuy ànd tiitaange ak jamono ji accident yi ni mu bëree ak li nga xamante ne si na ñu jégmal lay événement yi mag nekk suñu kanam nag ñu war a daati dal daati fexe nag wax ak ñi nga xamante ne si ne ñooy yor yooyu la woto ñu fës kee ne rek daati def ndànk rek bañ di jëkkante te rek daf rëpp lépp si yoon rek ba tax ñëpp daati mën a dem si jàmm ñëwaat ci jàmm ñu ñaanal rek ak màggal gi nu dëgmal képp ku si nar a dem yàlla na la yàlla yóbbu si jàmm andiwaat la si jàmm waaye daal mbir mu xamante ne si rek daati nay tiital Sénégal yu si bëri.